gisee programme bi lan nga si jànga dafa mel ni kooku noonu dem na ma di ko bëggee bu baax a baax a baax ba tax na ñi nga xam ne yéen ak ñoo seetaan dafa ma neex lool soo leen toogee seen biir kër yi di ñu jàkkaarloo ñun ñu ni neen ñuy ja xelalante ndax wax naa leen ne bakku bi dafa am fenn foo xam ne ni fañ ko jëlee ak fañ ko bëgg a yóbbu yéen yéen a tax ndax ni ma ko bëgg a defee mooy ne di leen jàppale ci biir kër yi di waxtaan ak yéen naka ngeen di defee seen biir kër jaagal jaagari gi defaru bi daal yëpp dafa am solo moo tax ma leen waañ bi dafa am solo waaye tegin bi tamit dafa am solo waxtaan bi daf ci am solo ba tax na yéen jeeg ñi nga xam ne yéen ak ñoo seetaan daf dee am solo lool ngeen toog jàkkaarloo ñun ci seen télé di ñu seetaan ñu di leen digal bu baax ma dal di jël kooku noonu ci line bi nuyu ko naan ko hello asalaamaaleykum waaleykum salaam naa def. alhamdulilah. waaw yaa ngi sant bi nees na de. jërëjëf yow kan la. man lay lan nga jàng nag si tooga bi. xanaa tooga bi neex na lool li nga nekk def baax na. dëgg la. ja rek ñu jàngal ñun xale ni ñoo demee. waaw xale yi sax da di def dem ba gëm naa loolu. foog loo di bëggee sista boobu noonu doon koolee foofu noonu ca Serekunda ba tax na ni ma leen ko di faral di waxee rek yéen ñi nga xam ne yéen ak ñoo seetaan askan bi wax naa leen ko yéen ñun ñooy bëtu réew mi waaye yéen itam ñun ñooy bo noppi réew mi ba tax na nag ni ma leen ko waxee rek lu waañ bi tànga-tànga foog ñu àndaa yéen ci biir waañ bi seet li nekk si biir waañ bi dañ leen ko indi lool waaye ni ma leen ko dee faral di waxee rek amaan na keneen ku nekkaat ci line bi ñu jël ko nuyu ko naan ko hello asalaamaaleykum hello maam waaw ko kan la man Fatima si loo nekk tey. nekkuma si dara maa ngi leen la seetaan. waaw Fatima. waaw. ana sa alaaji bi. man xale la aw ma waaye yal na nga am si saasi. amiin. waaw Fatima tey naka nga. maa ngi lan nga gis nag ci tooga bi. tànkee bi ah? waaye bu tax ma xiifal ko de. day bëgg a yibal rek rek ma siy kàllat. waaw incha allah dinaa ko xaar. <laughs> jërëjëf yaa ngi naay. jërëjëf ndeysaan di bëggee Fatima baax a baax a baax waaye ni ma leen ko dee faral di waxee rek yéen yéen a tax ñun ñu toog fii nii ba tax na liñ fi toog yëpp dañ war a àndaay yéen jàppale leen ci biir kër gi réewi Gambia ni ma leen ko dee faral di waxee waañ bi dafa am solo lool waaye lu waañ bi am solo lool naka la ñoo defee ci biir waañ bi moo am solo nda jeeg ci boppam. ni ma leen ko dee faral di waxee boo xëyee suba dafa am noo war a eewoo waaye ngoon gi dafa am nooy ngoontoo ba tax na tàkku saan bi tamit dafa am nooy tàkkusaanoo waaye naka ngaa defee yooyu yëpp yépp dal di defaru rek la boo xëyee suba boo defee sa maa bi tàllal sa bi dal di def sa pes sa goro sa daf maa neex lool musóor yi dafa am solo léegi léegi rek nga dal di def sa bu oyof rek dal di toog waaye nag léegi léegi tam jeeg dafa am solo lool dafa am nooy génnee tam ba na yëpp rek ci biir programme yi bakku bi dañ koo yaatal ba yaatu lool ba na nag tey amaan na keneen ku nekk ci line bi ñu jël ko nuyu ko naan ko hello asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum asalaam. jegeen jegeen bi <laughs> la Ami Diagne man laa koolee Kololi. Ami. ñu ngi leen dara. ami tey nag lan nga jàng ci panket bi. lu na oyof waaw. waaye man yow yow rek yaa tax ma kool. déedéet. dama dee try programme bu jot. waaw. dag ma neex torop. gëm loolu ami. ñu bokk ko. <laughs> li nga bugg <laughs> nga nuyul waa Kool fi yëpp ak Kololi. Ah, di bëggee kooku noonu bu baax a baax a baax waaye réewi Gambia wax naa leen ne lu waañ bi tàng tàng foog ñu ànd ak yéen ci biir waañ bi seet li nekk ci biir waañ bi waaye fu ma toll woon jamono jooju daf maa neex lool wax naa leen ci boppam dafa am jeeg dafa ku nekk dafa am nay peese sa boppam ni ngaa peese sa boppam man moo maa neex lool waaye ma dal di jëlaat kooku noonu ci line bi nuyu ko naan ko hello asalaamaaleykum. yokkal tuuti. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. yaa booy. maam Dieng. yaa booy naam. jërëjëf waay yàlla la yàlla fay. allahumma amiin. waaw dama bëggoon a xam farine bi ñaata kilo la kilo la wala liibar la. am one and a half kilos. ah. waaw. ah baax na loolu laa bëggoon a xam su affaire yi peese daal day koy leeralal nit ñi mun a xam xam bu dee suñ maas yi bëgg lu bëri. mun nañ def ñetti kilo te fekk ñeent la. eh waaye boobu sa yaa dafa nee. déet waaye du saf ni mu war a safee. <laughs> yow sax xam nga ko. foo def ñeent nga def kilo ak xaaf nga def fa ñeenti kilo mbaa juróom. waaye bi wane ni xaaf la. waaw baax na loolu laa bëgg a dégg kay. <laughs> waaw jërëjëf. <laughs> la yàlla fay. allahumma amiin. yàlla may la wér gi yaram fan. ñun ñëpp ñu bokk ko yàlla. ak mujj bu rafet. allahumma amiin. jekka nga taaru nga. jërëjëf yaa boy. <laughs> Gambie nii la war a mel xam nga keroog maa ngi dégg kooku naan yaa ngi mel ni Sénégalais. man la. Ah, te tey ñun Gambien lay. ñun fa man faana faana laa sax. waaw mooy suñu royukaay rek. waaw. <laughs> waaw baax palaat bi nag maa ngi si euh, Faat Faat Mbengue Faat Faye. Hmm. waaw. jërëjëf <laughs> ok bye bye. <laughs> bu baax a baax a baax rek yaa booy man faana faana laa xojo bombe sax sax. bu garaaw bi sax laa de waa Saalum di bëggee nag suma mbokki fana fana yëpp jamono ñëpp ñi nga xam ne ñu nga waa Kowur di leen bëggee bu baax a baax a baax te di leen wax ne nag noma naa leen lool incha allah nag xam naa dinaa ñëw si ruuj be yooyu noonu ba tax na dama leen di bëggee saa su nekk ni ma leen ko def faral di waxee rek waañ bi dafa am nuñ faa duggee tey it waañ bi dafa am nuñ faa génne waaye jeeg tamit dafa am nooy duggee si sa waañ ba pare dafa am nooy génnee si waaye xëy suba rek dugg si sa waañ am ay gan na la gañ ba fekkee gan ya nonu noonu ñu fekkee la malan ma nga toge won ak nga mbubo ya nga toge mom nga timé añ ba toog lekka ba pare soo nekkee ma si mam jëng gi ba pare moom ngaa continuer yotu lal ba dal di tëdda mané len dédé dama ko naw fim mu dama bëgg ñu waxtaan nak naka la ñoo dal di rek ma dal di jël ko non am ci line bi nuyu ko nan ko hello assalamu alaykum salaam. yaa booy. soxna nga def. waaw. maa ngi kóol yi ba kawur. ah ah su ma mbokki kawur yi kóol nañ. waaw loolu laa bëgg damaa bëgg nga kontaan. <laughs> ah waaye tey kontaan naa. te <laughs> baax na baax na dugg maam li ngay e def neex ma ni trop. waaye ma ne nuyul leen ma waa kawur ñëpp. dinañ ko dégg kontaan nañ nga nuyu ma nga nuyu ma suma ndijaay nag mooy alkaali bi. ñëpp laa lay nuyu. waaw ma bàyyi kenn. <laughs> yal na la fi yàlla yàggal yow ko place bi. allahumma amiin ndeysaan. kontaan nañ si yow waxtaan bu nekk dama dee a yow yow waxtaan nga nekk ndax fan Turekunda. na jaane ku naa ah ñoo nekk si capital bi Wharf Town <laughs> nga ma ñëpp nga nuyul ma ñëpp ndeysaan ñëpp waaw nga nuyul ma ñëpp Aida. ok maam yal na la yàlla yàggal ci tubaab amiin. <laughs> ndeysaan tey damaa xajaan kontaan naa ci yow. ndeysaan kontaan naa kontaan naa tey moom kontaan naa damaa gën a xajaan na suma mbokki kaw yi kool nañ may bëggee ñëpp rawatina suma ndijaay nekk foofu noonu di alkaali bi di alkaali Tafa Njaay bëggee suma bàjjen di ajaratu Ami Jeng ñoom ñëpp nekk foofu noonu waaye di si bëggee képp koo xam ne rek waa Saalum Saalum nga bi tax na nag ni ma leen ko def faral di waxee jeeg ñi gis ngeen tey panketi jën bi ma leen indil waaye dam wax naa leen ne léegi léegi daf maa neex lool boo leen bàyyee xel gis ngeen ne lii mooy recipe bi am na jën am na li nga xam ne ni mooy wane ni half kilos of bi gis ngeen ñeneenti nen lañ def ak ñaa benn teaspoon of baking powder bi boo leen bàyyi xel tamit gis ngeen ne liñoŋ bi oh, wane ni half kilos lañ jënd tamit loolu mu nekk lu am solo bi kane fa nekk black pepper bi ak li nga xam ne mooy sweet pepper bi am na galit am na li nga xam ne mooy table spoon mutaada bi ba pare na boo leen bàyyee xel ngeen am fa tamit li nga xam ne ni am ah, mooy kudu bi am ah, sukur bi bi nga xam ne ni daal dinañ jël li nga xam ne ni mooy three am ah, table spoon foofu noonu tamit si li nga xam ne ni mooy sukur bi lii yëpp jàppale leen rek la ci biir kër gi ba tax na suñ technicien yi gis ngeen xarañ gi nga xam ne moom lañ xarañ lépp loo leen soxla rek ndigeen wax ngeen ko rek dañ leen koo indil moo tax ma ne leen fii mooy Gambia radio and television services réewi Gambia ñun ñooy bëti réew mi te ñun ñooy noppi réew mi lii dafa am solo lool yéen ñi nga xam ne yéen ak ñoo seetaan waaye tamit dafa am solo lool jeeg ñi tamit naka la ñoo toogee seen biir kër yi ndax nit ki dina tooga ba pare yére yam toogee moo tax ñu ne boo toogee ba nga xam ne muusal nga sa maalo li ngaa def mooy dugal ci biir wanag bi dal di nag defaruwaat ba yàlla defal la jàmm pare nag ñëw tiim sa sigeer yekka soo yekkee nag dal di toog dafa maa neex lool tamit ci biir kër gi waaye léegi-léegi nga dem rek fekk jeeg bu mel ni maam jeng rek nam añee ba pare rek noonu rek laa toogee yére yam toogee ci biir waañ bi rek laa toogee waaye dama leen ne léegi bàyyi leen loolu nañ tey change